Euh, chers compatriotes mangi message bi pour daral fait di remercier ñëpp fait ma woo kilifa yi kilifa yi qui Touba kilifa yi le Tivaouane yi bokk ci faydu bi di jël ay nouvelles dalal xel yi rek rawatina yéen ñi nga xam ne da ngeen féete ak gëm sa bopp yéen ñi nga xam ne da ngeen bokk teg seen yaakaar ci coalition sàmm sa kàddu ay information jib na tey ji ginnaaw bi police yónnee ay nit ci sumay bërëbu liggéeyukaay ak ci yenn ci sumay kër parce que nekkuma fa woon euh, ku nekk ku tudd adjudant baaxum moo leen jiite ñëw na laajte ma pour jox ma convocation ñëw na fi ñaari yoon il paraît dem nañu seet ma ci yeneen i bërëbu liggéeyukaay il paraît waaye fekkuñu ma fa man Bougane ku ma xam-xam ne dawuma daayuma fu ma waay seet dinga ma fa fekk ñeenti barab lay nekk bu dul samay ñaari kër nekkuma ci suma barabu liggéeyukaay di suma bureau mangi nek cimetière Yoff te ku ne xam ban heure la fay dem kon dem dima setti des médias yak sa temps la parce que man des médias ku ne xam ne duma fa dem duma fa tek suma tank yaakaar naa ne legui mu mat ñaar at bima fa gëjee tek suma tank ak legui donc c'est juste pour dire à Ousmane Sonko qui veut utiliser la police et la gendarmerie la justice en général pour régler des problèmes politiques

man ken douma jox convocation may wo ay jeunes nan len kay servir len ma de bouclier je ne ferai jamais ça réew mi dama fi am ay responsabilité te musuma politique dama fi def li ma fi liguey te musuma am ndombay tànk politique donc Ousmane Sonko quand tu veux éliminer un adversaire politique il faut que tu t'armes de courage il faut que tu te salisses les mains sa loxo yooyu Ousmane Sonko boo bo nga xamné ne ko takal parce que man Bougane bo mu éliminer non du ci caaxaan nga may éliminer lepp lo génn wax ko te du dëgg boo génnee une heure du matin dinaa génn deux heures du matin vous génnee quatre heures dinaa génn cinq heures la preuve barki démb kaddu yi nga fi wax dene dañu falsifier ay données économiques bu Sénégal da ko def ma génn ne waxoo dëgg tey jii suñu borom jox na ma raison parce que le nouveau représentant du FMI à Dakar de manière très claire et certes diplomatique wax na yow Ousmane Sonko waxulo deug et au vu et au su de tout le monde on ne peut pas diriger un pays ci manipulation mënoo jité réew ci fen mënoo jité réew ci taf yëngal mënoo jité réew ci ay mensonges c'est pas possible Ousmane Sonko xeyna am nga yéné bëgg nga mais force est de reconnaître que mënulo ñak mën boobu tey jii moo indil sénégalais situation bi ñu rassurez-vous lepp lu mu la jaral ci sa jéem gogu pour yak réew ni man Bougane ak ñima andal wa coalition sam sa kàddu taxaw nañu fas nañu jim ak yow yaangi jëm lu nekk pour élection législative yi ñu jëm sam sa kàddu am ci ay jafé jafé man Bougane nga song xam nañu ne yaangi nekk di song Barthélémy Dias ci benen fan mais rassure-toi c'est peine perdue cette coalition va libérer le Sénégal cette intercoalition va libérer les Sénégalais ci trajectoire bu bonne bi nga xam yow sa cuune yow mi nga xam ne mënuloo te lu yaq yow yow Ousmane Sonko birna na Sénégalais yi ne six mois mu ngi ni ñi ñi ñu ngi ci ay jafé jafé ku sa dund ko yow la sa dund ko ak ñi la wër mais les Sénégalais aujourd'hui cherchent le diable pour lui tirer la queue parce que réew mi metti na dundu gi gën naa seer courant bi wayfal gën naa seer la ñi ñi gëna a ami jafé police gendarmerie dem niñu ko don ci ñi fi nekkon tay ji nga bëgg utiliser pour uniquement satisfaire yow li nga bëgg Ousmane Sonko loolu ko on ne l'acceptera pas def ba ñi fi nekk nonu lañuy defaat la la Sonko pour Yak rew rassure-toi jaral nañu ko ñun Ousmane Sonko ce pays les gens sont fatigués aujourd'hui avec le yow Ousmane Sonko ak ñi nga andal pour diriger réew mi da ngeen d'accord ak FMI pour dindi subvention yi subvention yi bu ngeen ko dindé moy tekki ne woyofal day yokk moy tekki ne dund bi day yokk parce que kenn dootul subvention ceeb kenn dootul subvention dëwlin ça veut dire tout simplement ñin ñi ci guttal li jëm way way comme mënulo inshallah le 17 novembre ñun wa Gëm sa Bopp and ak wa coalition Sam sa kàddu and ak intercoalition bi ak opposition bi nous way mën a taxaw nañu pour am majorité à l'Assemblée nationale pour que enfin puissions mën taxawal gouvernement qui xamné opposition bu Sénégal ay nit yu am kilifa ay nit yu xam fi ñuy jaar ay nit yu am parcours taxaw ngir sauver Sénégal parce que nak fi ñu le problème pour sauver Sénégal